plateau bi. rawatina DJ Cool ak sama tooma sama xarit. ndeysaan waay ñu ngi leen di baax ñi ni seetaan. wax yàlla nu yàlla defal sutura. dafa nu taw feex ba si daal làmmiñ bu ñu fi dal amin <laughs> amin incha allah bu kanam ñu ànd ak yow ci waxtaan bu am solo hmm. waaye tam comme ni ngeen ko xamee saa su ne seen rubrique bi la di musique ah DJ Cool moo leen koy ah, amal saa su ne alors Cool maa ngi lay ziar borom yu rafet yi maa ngi lay delloo ziar euh, madame Mbacke di nuyu ñi toog ci plateau bi yëpp ah merci beaucoup Aliou Sow. Euh, troisième âge bon donte nangu ko. <laughs> Aliou Mbaye ah l' artiste comédien au pair moom tey sunu fans nga ñu indil. munaas ñi ngi bëggewaat tam mbokk yi xaritu téléspectateurs yi di leen jox rendez-vous dans un instant. Mm-hmm. ci seen rubrique musique ak Yves Niang. voilà ñu daal di koy xaarandi fii ci plateau. Euh, petit déj mu mel ni rek bu baaxee jonge la ñuy waxtaanee mm-hmm. tey nag munaas nga indi thème bu doy waar mm-hmm. fan yi jigéen yi lañ doon wax nangam nangam jigéen yi mais tey dafa mel da nga euh, fas yéene rek waxtaanee taxawaay bi góor war am ci soxna bàyyi ah. rek ak euh, suñu gat waxtaanee ko Aline maa ngi lay la ziyaaraat bu baax baax ñu jox sa wàccuwaay international doon référence nag ci milieu bi nga nekk quoi vraiment ñu fekk la ci ñu nekk ci ay tuut tànk nga tette ñu ba heure bii kon ñun dañu war fii rek di ko fi teewalaat di ko di ko sant di ko gërëm ndax day teewaat mhm. ndax ñëwoon na fi mhm. kon day ñëwaat fi gërëm la mhm, macha allah mii noonu aleen ñu fa yéene pelloog yow ci taxawaayu boroom kër ci taxawaayu góor soxnaam góor gu baax ban comportement la war a am ba tëye soxnaam parce que gis nañ ni mbëggee raar na yërmande raar na ci góor ñi respect amatul satisfaction amatul ci góor ñi. Mhm. lan mooy seen problème ba tax léegi ngeen seetaan ñu daal dañoo gis dangeen ngeen la célébrer yéen góor ñi. Ah. <laughs> waaw di la nuyuwaat bu baax di la jox saa macha allah di wax ni wax nga lu am solo. Mhm. parce que souvent defe na ni bu nee sëy wala jonge rek ci parti jigéen ki la war te jigéen dafa am yu bari yoo xam ni macha allah daf koy soxla ci borom këram ci ay moment. Mhm. te yooyu borom kër bu ne war na fexe ba marqué ko. ndax damay faral di wax ni taraanga weesuwul jigéen ji bàyyi ñëpp ànd ak yow. wallaahi te li nga def ci jigéen boo lu ko doublé boo ko defoon ci rakkam bu góor kenn du la ko jox. Mm-hmm. kon déjà frustration rek mi ngi tàmbalee moment bi mu jógee ci këram ñëw sa kër bëgg a jaxasoog sa famille boo xam ne bokkuñu ak ni nu yaroo bëgg a jaxasoog waa koñ boo xam ne mustu bokk ak ni nu yaroo kon tey ku góor ki dafa war a taxaw chaque jour di ëppale. ku jigéen ki ci côté bu nekk parce que jigéen dafa bëgg ku ko yëg jigéen dafa bëgg sag mm-hmm. bari na koo xamante ni ci ci buy buy labat dina marqué ay empreinte ci côté bu nekk lu nekk mu nangul ko ko ànd dem restaurant lu ne di woote téléphone mm-hmm. mais bu xasee takk rek dafay mel ni benn retraite dafay am te loolu tey bari na yu ñuy rapproché jigéen bari na sëy yu ñuy lijjanti ay problème fekk ñàkk yëg googu rek moo ciy nekk problème parce que souvent góor dafay teel a dégager responsabilité ci côté soxnaam ci lim ko war a jege ci jékki-jékki woo ko téléphone mhm. ci jékki-jékki am ay présence yoo xam daf koy soxla mhm. ci bu ci tolloo mhm. di apprécier aussi li muy togg li muy sol yenn saa yi nekkal nag yenn saa yi mu togg nga ko ah macha allah lii de neex na nag génne benn som sax ni ko maa ko pat yenn saa mu sañse jàngale nga apprécier ko. yenn saa yi ngay ñëw parce que mag ñi doon doon wax ni. yow bàyyil kii wax waaye noppi da nga bari wax trop. mag ñi doon wax <laughs> mais yow bàyyil kii wax ah, ah, ah, ko coupé mu naa bu gisee bu gisee ku ñuy taakale xol bi day sëñ. <laughs> mais ba tey Aline waxal Aline Aline wéy la. boo gisee mag ñi doon wax ni jigéen dafa am ñaari mbuus. ñaari bu baax ak bu bon. Mm-hmm. Euh, loo ko defal ci lu baax. mën na ko bañ def ci mbuus mi mais loo ko def ci lu bon mu def ko mais booy wàcc di indaale mbuus mhm. dina la seede parce que tey bu ngeen xulowee li mu lay njëkk a wax mooy loo ma defal boo nee sa tey baax bi ñu ne ak a ñàkk fay di dégg muy lim boo noppee ñu ne yey na la kon dafa bokk ci jógee góor booy wàcc nga indi surprise sëricé daal voilà sëricé boo xamante ni di nga ko teg ci loxoom moom mu sentir ni présence bi muy def ci kër gi yaa ngi koy bàyyi xel mhm. parce que jigéen dafa bëgg ko yëg. jigéen ku neex a nekkal la. ci boo ko la si lu tey jii bu fekkee da am complicité ak moom. Mm-hmm. loo am nga ni ko lii laa am. dina la ko dina la ko sakkanal ba kenn du yëg ni yow da nga ñàkk. par rapport bu fekkee yëgoo ko même boo dee milliardaire bu bëggul dara mat du mat. Mm-hmm. kon jigéen lu neex a comprendre mais souvent ñun góor ñi rek dañuy def bu ñu takkee rek rarement ngay gis góor gu ànd. ak soxnaam dem restaurant. Mhm. rarement ngay gis góor gu ànd ak soxnaam fin dana jot mu dem ànd ak moom dem sax ci hôtel. Ah, jël fa benn weekend toog ak moom waxtaan. rarement nga koy gis ba boo tax sax bis bis boo àndee sa soxna di dem restaurant ki la gis te xamu ko day jàpp ni sa gel nga àndal. yaa fay nekk di justifier parce que amuñu habitude boobu. billaay da ngay rus voilà léegi nag moo tax góor. souvent dafa war di taxaw di assister jigéen ci côté bu nekk parce que jigéen ku neex a nekkal la parce que lu ko lu ko doy. ci taraanga ji ko jëkkëram di defar dafa yomb. ndeysaan. tey yenn saa yi nga gis ku bàyyi takk soxna bàyyi ko fa di taxawaalu guddi ak bëccëg di taxawaalu te yow pourtant loolu ngay mottali koo ci biti moom noonu lay mottali koo ci yow. Mm-hmm. bari na kuy pousser jabaram mu def leneen sax parce que tey woo ko te am na beneen góor goo xam mi ngi ko jege te gu jigéen taraanga daf koy blesse. daf ko daf koy gaaw a euh, pour mu satisfaire ci nit. parce que boo waral sax charia mu ne la booy dimbali nit soxnaam bu ko may bul ko jaarale ci soxna si jox ko nànk ko góor ki mu dem jox ko soxnaam. Mm. parce que bu fekkee da nga ñëw rek pour mu faa la dafay yomb. léegi nag bu fekkee ni yow da nga takk soxna nga ba ko fi di taxawaalu fu ne nga dem fa. Mm. amul benn temps boo ko jox. bu mm. amee benn koo xamante ni day rogo jeeru di ñëw. Ah, mën na ko bàyyi xel ci erreur parce que du ñëpp a mat fekk yow yaa ko poussé mu def loolu. moo tax nañuy jege suñu soxna yi di leen defal teraanga di waxtaan ak ñoom. mais souvent da ngay ñëw fa sa kanam dugg waaxu génn génnaat mais yooyu jigéen taxul ñu may la ko da nga war di kaf ak moom parce que tey nit jigéen dina borom këram dina génn léegi mu namm ko léegi dëgg la parce que fa mu koy féete la mm-hmm. borom këram dina génn léegi mu yàqamti mu ñëwaat bu fekkee def nga loolu ci boppam fay du am tas du am lu xuloo xuloo da koy jooy ñëwaat parce que xam na ni am na lu muy dund ci yow boo xam ni moment bi ngeen di xuloo sax daf koy manqué mais bu demee ba charette di la sant ni am na ah, bu la bu la tooñee na nga na nga na nga téye sa bopp wala nanga gedd mhm. parce que la ko tàmmaloon moo tax mais bu fekkee ci gedd nga dëkk boo geddee du fay bu fekkee ci dëkk ba mere du gis nga Alioune ah jigéen ngi dund lu métti métti seen néegu sëy parce que des nga gis nit waxtaan ak jaw mais après yow danga naan lii est-ce lii am na réellement. Mm, mm, mm. yaa gis ni day dëkk ak borom këram mais mën nañ def 3 mois 4 mois duñ kenn du wax ak sa morom. ku nekk day xëy rek romb sa morom dem. sa yoon am xamante ni dangay nekk ak sa jëkkër ci borom kër gi ci boppam moom ku góor ki de bu tëddee dalay wan ginnaaw dalay wan ginnaaw c'est vrai dalay wan ginnaaw am na jigéen yoo xamante ni ku fi am amit daallu danga nga am ko waat dëgg la ñu ngi muñ ay muñukaay yoo xamante ni yàlla santu leen ko yonent bi santu leen ko mm-hmm. parce que xorom sax warul sa jabar warul koo jëndal di ko def ci cin te tey jigéen ñi ñoo yore kër yi ñooy cuuraay ñooy bale ñooy neex dafa am accessoire yu ndaw yoo xamante ni jigéen mu ngi koy jënd ci biir këram te góor ñi bàyyiwuñ ci xel mm-hmm. am na ñu bari yoo xam ay omo ay bale xam nga ma ay mbomb am na bagage yu bëri yoo xamante ne ay seet mais darab yi ngay lal sax waaw ci bëri yaa ko jënd sa bopp lu bëri yoo xamante ni jigéen mi ngi koy def am na jigéen ñoo xam ne ñoo yor seen jëkkëran ah. ñoo fi yor seen jëkkër te kenn xamu ko mm-hmm. kon ngir yàlla sa taxawaay li nga xamante ni mooy sa soxna si nga takk ci farta yàlla su na suma xamet andi ko ci biir kër gi dangaa war a doon baayam mais ba euh, ba une question munaas maanaam man dama gis ni góor yi ci bëri du ñëpp nag. Mhm. am na góor yu bëri bëgguñu jigéen bu leen nangu ñoom boo boo nangoo dañuy jàpp da ngaa nooy dof lañ lay jàppee sa faf. Mhm. ñoom jigéen bu révolté ak ñoom di ko jaayanteeg ñoom. moom la ñuy gën a teg nit moom la ñuy gën a teg nit. mooy xam nga baadoola moom boo ko defalee teraanga day du xelex ni daa ko mhm. yeyoo. mais jigéen bu nooy kooku yow danga war a sax am kersa parce que tamit il faut que góor muy marqué lii tax ñu jàpp ni mooy borom kër mhm. parce que tey sa soxna bu la nangulee mhm. mais mi def na la sànq yow it pour nga delloo ko loolu équilibre dafa war a am ba moom sax du yëg ni jaam la te pourtant def na la sànq mais ci équilibre boobu ci yëg gi nga yëg ni kii yàlla moo la ko jox xanaa xamoo ni bari na kuy wër ci sëriñ àqu jabaram moo ko jàpp parce que tey sa soxna <laughs> gis nga gis nga boo dalee ci dara Mm-hmm. boo dalee ci ku nga ñëw ni soxna si ah, sa jigéen naqariwut a nekkal nga ñëw ni ko ah lii de jigéen bu la bëgg voilà mm-hmm. non parce que jigéen même bu ñëwee ci yow te bëggu am na nooy def ak moom mm-hmm. dina dem ba miin la bëgg la parce jigéen dafa am ay sentiments yoo sax indi benn mbalak fecc kaf ak moom ree ko nan bëre cest yooyu affection dafay tax nit di bàyyi xel nit. amatul de. voilà parce que nit mënul namm ko mu xamul parce que. boobu affection man lu ma fecc de man lu ma fecc ñëw loo may fecc. Ah? non ah, non damay damay fecc moom kenn du ko ci plateau waaye fa ngay feccee kenn mën na ko. waaw kenn du ko may waaj. waaw damay ah, caractère man man damay dugg fas sama kanam. toog tegle samay tànk ñu jox ma lekk. yaay fecc nag ñu takk la juróom-ñaari fer tegal la ci sa. man maa ngi tegle fer man maa. bañ a takk fer mooy ñëw ñëw comme ñu ma tegal. fer man fer mooy la fer fer góor alal góor ak fer. bay Aliou yëngali ay waay mun naa góor ah si ci jonge la ah, eh, du takk fer. góor dafa war di góor góor eh, góor góor du takk fer. góor jigéen mooy takk fer góor takk fer waaw man loolu laa ànd. Ah, ok ba ñu ñu ñu yàq lu nekk. am sa benn ah, tama booy ah. bàq nekk waaw loolu la dox di tama. pourquoi biir nekk amul tama. mais franchement mais non mais non loolu loolu ay kii. Salma moom tekkiwul dara mook Aïssa ñoom ñoom bu leen laaj jaruñu jaruñu ko mais lu leer laa la wax mooy may ay ay yooyu noonu xam nga respect moo am sens may ay ay tama ay yooyu noonu noonu man jox ma ma lekk bàyyil xel ci man li ma jox ma lekk di ma toppatoo di ma seetal samay yére di ma fóotal di ma jigéen loolu rek la mais ay tamaak yooyu xumbal bu am bu ñàkk solo la mais nga naan ngay jël góor naan da ngay takkal mais mais a ngi sang seen jabar yi yéen sang ma lu may dox di sang sama jabar man te mu mën a ah, sang bopp sa jabar di la sang non man dinañ sang man ñu may sang sang ma te deewu ma man dëgg la xawul loolu ay si mun naa. ma sàngal sama bopp loolu ci biir néeg bi la sax mais je pense que sëy dafa am lu ko jiitu sax balaa néeg beeg lal beeg yooyu yëpp yooyu yëpp bien vrai que c'est une réalité loolu moom am na solo kenn du ko génne ci am solo bi. mais maanaam ci biti naka la ñu wax a comporté woo suñu digganteeg suñu euh, soxna yi maanaam respect bi Aliou Sow wax na ko dafa di. lu am solo te ñu bëree bëri tamit jigéen ñi ñu bëri respecté wuñu seen borom kër. des fois nga gis yoo xamante ni da lay dépasse da nga naan lii moom est-ce que kii xam na ni réellement lan mooy cëru borom kër ci soxna xam nga tey mooy mooy li nu wax c'est-à-dire am na loo xam ni ke jigéen du ko imposer mais jëkkëram mooy baax rek bégal ko ci mm-hmm. ñëw balaganteeg yow beneen bi bu njëkk da nga daan dégg ñu ni la booy booy dem di sëy danga daan am benn temps sa nijaay say bàjjen ku nekk ñëw def discours mm. discours bi muñal moo ci jiitu mais dañ koy détaillé ni la ki ngay seeti sa sang la dëgg sang nag da koy jaamu ngir nga lawre léegi da ngay dégg ñu du ñu am sax taawu mbuur la parce que temps bépp yaa ngi koy def ci xew ba buñ lay xëcc dañ lay ñoddi yóbbu la beneen bi ñu ne jëkkër nawle la. dëgg la c'est-à-dire jëkkër du nawle parce que nawle mooy bu amee daal nga am na ah, nawle mooy bu yaa ngi koy toppandoo boo ko am na ñoo xam boo la nee may mënaan ñu la yow it may mënaan waaw effectivement effectivement parce que def nañ seen bopp ni kii sa nawle la ah. pourtant nawle bi nag fi muy feeñee mooy boo ko defee sang bu boobaa ci seen comportement parce que teraanga moo doy waar. boo ko mhm. joxee ku am xel rek ku nite rek bu la ko delloo. ku xam teraanga am mi mhm. ngi mel ni âge. fi ne boo gisee ñun ñëpp yàlla indi ay âge pour ñu bu nu bu bu respect ñëwee rek âge dootul feeñ. Mhm. parce que dañuy mën a composer waxtaan parce que ah, stratégie la pour yàlla indi âge pour ñu mën a joxante respect. jigéen tamit bu njëkk cest à weñ gi nag mi ngi bañee ca manjaxaan. boo daan génn ak nit. taxaw seetlu la woon nga xool ki ngay génnal ban genre la mhm. mag ñi dañ la daan nattu ci côté bu ne di xool bu njëkk dañ lay jox sax wëñ ni la lijjanti ko boo ko mhm. lijjantee ba wëñ bi ba ba ba wëñ bi yëpp tàqali ko ñu ni la mën nga am soxna parce que boobu mhm. patience bi nga ci am ah. nga ah. énervé woo mën a jël sa temps mag ñi dañ daan lépp macha parce que ku amul patient wu taxaw di lijjanti amoo patient wu yor soxna parce que jigéen dañ ko bind ci mu lay tooñ ba pare njëkk la yuuxu waaw dafa am làmmiñ dafa ñaw voilà ba pare bu meree baaxam bokku ci mën na la wax lu metti mais après ci mer gi la mhm. léegi nag ku mel noonu boo ko yoree. te pourtant am na góor yu mel noonu na ñoom bu ñu meree façon wax jude. non góor moo warul mer di wax parce que. léegi góor yi am na léegi dañuy wax. verbal dañuy sax sosal seen soxna yi léegi. verbal yi am na mais bu fekkee mi ngi déglu lii na ci bàyyi xel. parce que li tax mooy. mat gi nga xamante ni moom lan ni ku góor ki yaay boroom kër mm-hmm. mooy mature bi nga mën a am sa diggante ak sa soxna ba raw ko ci yu bari mm-hmm. bu loolu amul rek tey bari na ñu koy wax mm-hmm. souligné na ko jigéen góor joo xam ni sa jabar moo dem ba di la joxel dépense wala mu lay defal yi kër gi na sa présence ci yow parce que tey buñ lay wax boroom kër présence bi nga mën a am mu doon sa première gàllaaj mooy dépense moo tax dégg naa ci borom benn borom xam mu ne amul góor guy joxe dépense di dem sawara kon bu fekkee xam nga yow sa présence dafa am yoo xam ni yow la war yaa ko war a marqué kenn warul la ci jiitu waaw loo xam ne dañuy dem safara. <laughs> ñëpp ñëpp fay dem safara. <laughs> léegi eh, doxaan ak labat du ñu benn. voilà ah, waaw parce que doxaan doxaan doxaan il faut jigéen ñi xam ne doxaan jigéen ñi ko moom. mais sëy góor a ko moom. parce que doxaan mooy kii campagne ci réew mi rek. du la wax lépp. Hmm. parce que bari waa jigéen joo xamante ni li nga ko bëggal moom du ko xam. moo tax waykat bu mag bi coon sekk yàlla na ko yàlla dem ni sa jigéen sa jabar sa yaay bu ko nangoo buntu yebel baa ngi foofu yenn saa yi ngay génn ak jigéen xam ni yaa baax ci moom mm-hmm. sentiment bi nga koy wan mu ne sama yambar bi tout à fait ci lu wees sax am na léegi ki nga xamante ni parce que jigéen mm-hmm. jigéen mënta xàmmee ñaar jigéen mënul xàmmee ñaar ki ko bëgg ak ki ko bëggal mm-hmm. te pourtant loolu ci doxaan lañ koy saytoo mais yàlla moo lay dimbali parce que souvent jëkkër yi ak soxna yi ñi ngi ci biir kër yi mais ñun bu ñuy ak waa ji te ñoo ñu ci mbedd mi mënoo fa xam ku baax parce que am na ñoo xamante ne dañuy téye benn cinquante mille poisonné lañ ko tuddee ñoo mm-hmm. may la ko mayaat la ko pour mën la am satisfaire sa xel am na góor goo xamante ni ci doxaan mën na la may lu ne mais ci takk waaw mm-hmm. bëri na léegi nag yooyu ci génn bu njëkk jigéen bu mësaan a am copain day ñëw présente ko sëram wala magam ki ko supérieur mu jàng waa ji mën a xàmmee bëgg gi ak bëggal gi loolu nag bu ko teel ta saytu ñu dem ba ci sëy doxaan naxante la bu duggee ci sëy nag mu bëgg ma doon wax nangam yaa ma doon def nangam problème yi foofu lay tàmbalee. kon da ngaa bëgg wax ni que ñun xale yi dañoo doyloo suñu bopp daal amatuñ kilifa. jërëjëf parce que tey li nga xam nga souvent ñun ku ci présenté sa copain wala sa gel lii tax say mbokk bëgg ko rek ngay wax. léegi nag yooyu yëpp boo ko waxee ba ñoom ñu ànd ceeg yow ak ñoom lan la ñuy participer ci xelal la parce que tëj nga fépp fu ñu waroon waxee. mais est-ce que Aline Mbaye parent yi amuñu ci part de responsabilité bi nga xamante ni kiy doon seen euh, kiy takk seen doom wala kiy ñëw di labat seen doom ci biir kër gi est-ce que waruñoo gëstu ba xam ndayam xam baayam xam maam xam fa mu bawoo. mais bu njëkk noonu la daan demee mais xaalis yàqu na ko. xam nga première responsabilité parent sax mooy doom bu jigéen da koy yar ci mu xam. da nga koy yar parce que jigéen du bote bopp la. dégg nga lii. xam nga jigéen moog wifi bi. ñooy yaa mën wifi tey boo ko côté ku ñëw rek da ngay gis sa buntu kër ñëpp mhm. mais boo ko côté balaa kenn dugg ci wifi bi dina ñëw laaj la ko kon boobu ci jigéen mooy tey jigéen boo ko jàngalee ba mu xam lan la euh, lan la kanamam représenté ci moom nga defar boppam ba mu baax bala ko kenn jëfandikoo bu tawee day ñëw ñaan la ko mhm. mooy laaj si na la code bi bien sûr bien nga jox ko code bi jébbal ko ko mu dem ci këram lu muy def ci wifi mu def ko ci mhm. mais éducation boobu amatul parce que waxtaan bi daan am ba jigéen bu demee ba yëg la mu daan yëg stratégie yi mag ñi daan teg ni la bu nuyu góor mm. boo ko jegee nangam xam nga di la yar ci façon boo xam day dëgëral sa bopp parce que góor ñi ñëwuñu di xeex pour pour sàkku ku jigéen ki dañuy mm. ñëw pour bàpp ko mm-hmm. yow mais léegi xoola suñ bu mujj bi saaga seen doom damay nangam te dañ ni la boo yar nit dangay fexe mu rus la mais bul fexe mu ragal bien sûr yar sa doom da ngay fexe bu ko ku góor waxee dara mu ñëw ne yaay diw de nee na ma nàngam parce que may nga ko ci sa bopp loolu diw de loolu de bu ko defeti boo ko defee xanaa xamoo sa nawle nangam sa nawle nangam mais bu fekkee mayoo sa doom mu ñëw communiquer ak yow ku góor ki da koy nax mm-hmm. te bari na jigéen ñoo xam bi ñu demee ba toll ci yenn âge yi leen riccu parce que fi leen naxee seen capacité yeggu fa te amuñu ku leen ci dimbali woon mm-hmm. ah kon première à tout moment mën nga nax jigéen ah jigéen du tëdday raw dëgg la lool laa. waaw à tout moment jigéen mën nañ ko nax. waaw parce que. way juróom war a éducation dafa baax éducation boobu moo tax même boo wéetee ak ku ci nekk euh, nga dem euh, jàdd maanaam doxaan gi ñu doon wax. Mhm. tey ji nga dem doxaan def ci gelloo xamante ni booy pare ci saa di ko regretter. Ah, lan moo tax ma def lii. xamoo sonn la ko def loo. moo mhm. tax ñu naan jigéen du tëdday raw comme tii ci góor tamit di nga am jigéen boo xam ne egg nga ak moom foo xam ne bëggoo foon a egg ak moom mais boo paree da toog ni man lan moo tax ma def ni pourtant du sa bon de du Aline Mbaye moo bon mais xamoo lu la ko def loo waaw moo tax yàlla xam nga yàlla mi ñu xam daf ñoo mm-hmm. amul benn xam nga dafa xam ne nag tayef gi mi ngi nekk mm-hmm. yow mënoo ñëw wéet ak góor bu njëkk da nga daan ñëw ñu toog nii ah, toog ca saal ba da nga ñëw nga wéet toog ca saal ba te góor gooy àndal ngeen di génn mu laaj la boppam mbéj ko bëggu la bëggu parce que nit du la bëgg di la bëggal gàcc ci mm-hmm. bu fekkente ni sa bopp xam na fi muy jaar pour mën a jariñoo sa bopp xam ne mm-hmm. daf loo takk kon ki laaj kooku bëggu la mm-hmm. beneen bi mooy bu fekkee da nga am ñaari far jigéen ñu bari ñooy pousser góor que si que mu proposé leen bu fekkee da nga yem ci kenn day xam ne ci moom nga yem da ngeen di ànd pour takk mais boo amee ñaar li muy def ci bopp mooy lu ma ci deful kay def ko ci waaw moo tax suuf jamono ji jigéen ñu ñoo dugal seen bopp ci lu tax góor di leen yeb parce que bu njëkk gis nga góor musul ñeme jigéen yàlla moo def loolu jigéen même puis ñaar fukki at ak yooyu ci ginnaaw sax ah. ba léegi sax léegi sax la commencé. non léegi sax li tax mooy parce que bu njëkk am góor dafa jigéen dafa am benn caractère boo xam ne daf koy dégager. bien sûr xam na ay limitam bien bu njëkk sa copain loo ko bëgg-bëgg fii nga koy biisu. Mm-hmm. mais bu fekkee nag léegi góor ki dafa taxaw ñemewu la mais yow yaa ñëw. Mm-hmm. wan ko lii tax mu ñeme la. bien mais parce que yow yaa déstabiliser sa bopp. mais est-ce du àdduna bi li mu ubbeeku ñuy xool yenn yi ay yenn dëkk yi nga. xam ne du dëkk loolu ma loolu moo leen gën a jox fit ba ñu xalaat ni loolu war na mën a nekk. waaw loolu xam mm-hmm. bu njëkk xam nga télé. da lay ça apprendre ou laisser. télé ah, nekku fi pour yar nit. mais da daan fekk nag nit ki yar doomam ba buy seetaan télé xàmmee ne li mu war a xool ak li mu war a zappe mais lekk yi bari na mais lekk goo bëggul doo ko lekk. lekk bu parce que sa xel nangu ko parce que yar nga sa xel ci lekk gi mu nangu. yar nga sa xel ci lekk tey jii am na animal yoo xam ne dafa xaraam xam na ni doo waroo ko lekk lan moo tax parce que dan la ko jàngal teel ko xamal. Mm-hmm. tamit da nga yar sa doom ba buy seetaan moom ci boppam bu yemee ci lu jaaduwul. day changé moo boppam. bien sûr mm-hmm. mais éducation de base moo jamono yëpp. li ci am solo mooy éducation de base. Mm-hmm. tey jii tey jii man bu may communiquer. damay xool ku wax dara ma meree munaas may sati ko pourtant dañ la daan yar ci ku am kilifa du gàggante ko ci mbedd. Mm-hmm. léegi ñun amuñu fenn fu nu nekk lu dul dañuy naase wu nii rek ba gis dara rek. Alioune wax na man gis naa sama bopp ma estati ko di ko fajee mer. <laughs> waaw loolu nag première erreur u Sénégal mooy eh, loolu. tey man bu ma ñëwee sama xam-xam di wax fii. ma may wax ba ci yàgg di sóor kenn koo xamante ni bu ma ni woon kaay mel ni moom neexuma mu commentaire ma mën a changer sama wax kon yaa problème mhm. nit da nga dan lay yar ci nga dëgër mhm. dan lay yar ci xam-xam bu wér nga xàmmee ràññee xam saytu ak moytu mhm. xam li nga war a jël ak li nga war a baax Aliou mun naa laaj dara euh, euh, yar ak suus noo ko gisee yar ak suus suus ban suus. suus suus bi xale yi di fecc. fecc ah, <laughs> ah non xam nga ku nu yar du fecc suus. Hmm. <laughs> xam nga yar ak yor bokkul. kon kon pourtant boo demee léegi nii. Mhm. sa téléphone nii. Mhm. nga def suus. Ah. ay ay ay vues yu dul jeex ngay gis. waaw ko mhm. waaw. waaye léegi loolu loolu ban analyse nga ci am par rapport à la société sénégalaise d'aujourd'hui. mooy d'habitude kuy wax Moussa nga mee kuy jëf Firawna. ok euh, Sénégal ñun ñoo tàmm di toog nañ wax lu baax nañ def lu baax. mais bu fekkee seetaan lu baax duñ ko utiliser. mooy li ngeen doon développé sànq ci si duñu dooleel lu baax aussi dafa yoo xam ne stratégie lañ koy jàppee ñun. Mm. bu ma soxlaa Alioune. Mm. damay xool ban façon la ma ñëw jaar ci loolu. Mm-hmm. kooku bëgg gu ma la dama laa bëggal. Mm-hmm. li ma la bëggal bu sottee dama lay tegee nee. Mm-hmm. tey Sénégal ngay dégg bu coo amee na sëriñ si wax noonu ñiy jàng ñoo war a wax te fi mu ne nii lay amatul parce que loo bëgg a seetaan ko. te dafa yomb dafa accessible am alquran boo tàppee leneen am leneen mais ñun ci suñuy wax dañ ciy defal suñu bopp ba souvent sénégalais ci wax sax ci lay tey jii da ngay nekk xale ñu naan la noo wilaay borom karagu ñuul ñàkkul dara yoo koy góor góorlu mm-hmm. nga jëm mag ñu ne la moo wërsëg dëgg mi ngi ci bijaaw ba nga xëy dee <laughs> moo tax néewu Sénégal yu bari bu ñuy dekki <laughs> rankiñe la ñuy dekkee parce que déception yi nu am danoo am ay taarixu wax yoo xam ne du jariñu dara ah, ñu téye ci te contexte bi boo ko xoolee sax du woon li muy wund mhm. c'est-à-dire ñun suñu société loolu mooy problème ok mais balaa muy tàggoo man dama bëggoon tuuti ñuy préciser aussi itam ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ak société bi mhm. euh, bu ñuy waxati ci mbiri jonge mhm. il faut que ñuy wax xale yi ni ñoom bokkuñu ci parce que li ñu doon wax léegi par exemple tey ki ñu wax naan moomuloo par exemple ñëw biisu nit ki ci gémmiñ mhm. xale bi taxul ñu wax dëgg neex yàlla moomu loolu donc yooyu noonu man pour man il faut que su ñuy wax xale parce que léegi li yàq bu nit ñi di communiqué mag ñi la ñuy waxal borom kër yi te borom kër yi ñu ci bari mur lañu mhm. mais xale yi nga xamante ne ñoruñu ñoom la ñu war a xamal ni li ñuy wax yéen du pour yéen li ñuy wax muy seen kanam parce que xam lu war xale yi ñoo ko def xam nga da nga ni mag ñi la waxal mm-hmm. parce que mag ñi ñoo waroon wax a xale yi ñu wax ak mag ñi ñu dellu wax ak xale yi mm-hmm. c'est-à-dire weñ gi mi ngi bañee ca manjaxaan ka mm-hmm. mag ñi ñoo waxatul ak xale yi waaw communication boobu sax mooy feeñ ba ci biir néegu sëy parce que tey mais yow xale lan la la jox liir ku ñëw indiwul dara mais nga war a stocké tey téléphone bii bu la koy jox mais yaay dem nga nga nga nga monté ci lépp loo soxla. tout à fait cest àdduna lépp dafay déclire li war application yi nga bëgg moom nga si téléchargé. les xale di la jox selon ko environnement bi muy yaroo. noonu lay mel. moo tax mag ñi. ñi ñi am doom ñoo war di yar seeni doom mhm. bu njëkk xale amul fi ci jug te njëkkul jàngi alquran léegi tubaab bi nax nañu ci jardin ba da ngay njëkkee jardin xale mooy lan waaye taxawal pourtant nga jox mm. ba léegi man sama doom 13 ans la am mm. mais Salma wala ku mel ne Aïcha Diakhaté boo ñëwee sama kër moo lay njëkk ubbi frigo bi ñëw may la ndox boolu ci sukk man sama doom ndeysaan parce que gis nga ku ci nekk boo dëggee sa dëgginoo ndey mm. <coughs> boobaa rek da am référence jurul ñuy wuti référence ku ci nekk da ngay jël sa yaay yow moo gën ci yaay sa yaay gën ci yaay gën sa yaay ñu jël suñu yaay yooyu def leen ay référence jur suñu doom yooyu nampal leen ci loolu mhm. yar leen ci loolu ku boobaa xale bi du jéggaane déedéet mooy xamani kuy jéggaane sa kër a dëggul mais dooni man mun a xale laa tam sama doom xale la nangam nangam am na bas âge yoo xam ne am na xale yoo xamante ni yaa leen di jàngal. am na am na solo mun a si am na xale yoo xam ne seen i wayjur ñoo leen yow mos nga suuf yow voilà loolu bàyyi sa suuf jabar jàmbur maanaam suuf yàggul suuf yàggul Aliou na munaas laa laaj munaas est-ce munaas Balde mës na suuf même bu dee biir këram moom kese est ce que mës nga suuf. ayca Aliou Sow am mais waxtu bi daf ñoo ah, daf ñoo. léegi ah, Aliou li mu wax ci suuf non oui ma Aliou Sow. malheureusement waxtu bi moo ñu xëy. mun naa si jaajëfal la Aliou Sow Fallou Khoudia Koumba Gayndal Khoudia jàmbaari Serigne Abo maa ngi lay nuyu di la ziar dala sukkal samay bëtu oom ci suuf du nuyu Gumbalaay sama sponsor leader borom Touba Daaru Karim du nuyu international bi encore di la jaajëfal. Mhm. ndax vraiment bi ma lay wax invité bi presque au dernier moment la. te mënoon te sa xam sa kilifa bu la neexoon nga gàntu ma. d'accord yàlla defal jàmm ci bari merci merci beaucoup mun a am na solo yow ñu jaajëfal la. waaw di sant bu baax waxtaan bi neex lool macha allah. bu ci gi sama xel dafay dem ci Serigne Medoune Seye borom tawféex. d'accord daf may wax ni walfu fu mu ma fee ak lu ma wax du ci am suwa. ndeysaan ndax kóol rek Sidi Lamine ñu di ko sant bu baax mhm. di sant